assalamu alaykum mbolo mi ñoo leen di nuyu ku nekk ci seen tour ak seen sant di rafetlu seen teewaay tey fii nii ci permanence su président Mame Boye Diao te lu koy findal mooy seen mbëggeel ci moom ak seen kóllëre ci moom moo tax ngeen bàyyi seen jiite tey jii nii ñëw ngir teewe bés bi ak ñun donc ñoo leen ci gërëm di leen ci sant bu baax a baax a baax tey jii nag waxtu bi lu ko waral mooy ñun ñi nga xam ne ñoom ñooy jeunesse Mame Boye Diao ñoo woote won ndaje bi na xamné ne ni ñu ñoo ñu fexé ngir ñu amé suñu assemblée générale wante pour ay raisons yu na xamné bëggu ñuko wax ñu décidé défé ko fi wante président Mamboy Boye Diao ki yaa na xamné né il a un esprit républicain nañu mirmi buñ ko def nañ ko arrêter bañ créer trouble à l'ordre public fexé ko défé fii nii wax ak jeunesse bi na xamné ñom ñu xam dëgg-dëgg kuñ nekkal les nag luñ lancer comme message Nous sommes ci ay parrainage et nous gisuñu keneen ci ku du le président Mam Diao Nous jeunesse candidature nous ferons au moins un million de pareils, c'est la jeunesse qui va offrir ça au président Mamboï pour faire pour fexe président de la République au soir du 25 février 2024 Ken, mu ñoo egg fu ñu bëgg egg du tax ñu atteindre suñu objectif te lii lu koy wane mooy malgré que tey jii nii am nañ problème pour def suñu événement nekk nañ fii fekkante fii ñi saafante coloré ak jàppale le président Mame Boye Diao kon su boobaa nañ xam ne mbir ci yéen la dess, mirmi, mi mbir mi ci yéen la dess, le président Mame Boye jeunesse ne ko bëggal boppam moo ko teel boppam moo ko jàppal donc féké ñun ay jeune lène nañ fexé inshallah rabbi mu nekk suñu cinquième président de la république du Sénégal.